waa salaamaaleykum donc euh, ñi ngi tudd madame Guèye Fatoumata Diouf nekk adjointe au maire des HLM nekk coalition nekk euh, coordonnatrice nationale bu coalition Macky 2012. waaw sama teewaay ci bës bi tey jii daf fi nekk ci ñaari fànn wala sax xëj na fànn yu bëri dañu fi nekk en tant que euh, ku dëkk ci commune bi. dañu fi nekk en tant que ku dëkk ci commune bi waaye nekk fi tay ji accompagner sunu ay jeunes frères ak sunu ay jeunes sœurs ci domaine sportif tey jii ñu doon jouer euh, góor ñi doon jouer ñoo jouer en première heure deuxième heure bi jigéen ñi ñoo jouer te macha allah tey jii dañuy am kontante goo xamante ni wax sax fi mu toll nii daf ñu jafe ndax tey ji dañu am 100 pour cent góor ñi ñoom ñoo joué gañe jigéen ñi ñoo ñoo mujjee joué gagné. li ci gën a nag neex ak li ci gën a yéeme mooy tey jii dañu gis jeunesse boo xamante ni dafa déterminé tey jii day dem droit au but dem arraché li nga xamante ni daf ko bëggoon muy gagné match bi ñu doon joué ak waa Fass. defe naa ni waa équipe bu Fass démérité wuñu elles ont bien joué mais aussi. waa HLM gàcce ngaalaama. d'accord ñu gis ne ne maanaam HLM espoir bi tumuranke na ndax yéen pare ngeen pour accompagner équipe bi di HLM basket club euh, tumuranke na tumuranke wul c'est selon mais liñ ci mën a jàpp mooy tey jii nu sommes déterminés plus que jamais à accompagner cette jeunesse cette jeunesse qui est une jeunesse saine. cette jeunesse bi nga xamante ne xam nañu fa ñu jëm jeunesse bi nga xam ne am na détermination tey jii nu som prêts en tant que qu'habitants des HLM, à aller avec, avec cette jeunesse la à les accompagner dans plusieurs projets, dans leurs projets, dans leurs projets. waaw message bi may lancé ci jeunesse bi rek moom mooy fi mu toll nii euh, comme dañu nekk ci période de pandémie xëj gën la na ñaax ci li nga xamante ne moom mooy mën a aar nit ñi aar mag ñi moom mooy ci respect euh, mesure barrière yi surtout di takk masque di raxas seeni loxo ak gel kooku dañ koy lancer jeunesse bi parce que jeunes bi moo mën a euh, jàllale yenn message yi ñoom ñoo mën a euh, yenn yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu def ko euh, beneen bi it moom mooy ci biir jeunesse boobu aussi ñu ngi leen di wax nañ leen nañu fexe ba ñu dem ñàqu ji ndax feebar bi mi ngi fii sunu biir te ñoom ay nit nañ ñoo xamante ni mën nañu porter information yooyu ñoom ñu ñàqu seeni wajur yu ñàqu ñi ñu dëkkal ñàqu donc loolu ñu ngi koy lancer jeunesse bi mais aussi ñu ngi ñaan population HLM bi yëpp ñu jàppale le milieu sportif parce que tey ji sport rek moom moo mën a fédérer boole ñëpp seen xol ànd ndax tey ji gis ngeen tey ji li ñu gis fii muy xale muy mag muy ndaw ñëpp la xol yi ànd ñëpp ànd nañu daal di supporter équipe bi et vraiment euh, le match a été vraiment beau donc gagné nañu ci jàmm ak salaam féliciter xale yi ndax ak engouement lañ ci demee ak détermination et encore une fois une jeunesse responsable koo xam ne xam na li mu bëgg tey ji loolu la ñu gis fii ci terrain bi